sibil dinaa lijjanti ay mbiram. waaw seen waajooju xam nga waali sax amul seen jot ñoom. mais man maa am jot bi. Mm. man ni man li may def nii ci waali doomu aadama mënu ma koo tee def ku wax ci waali ma man man dama lay tontu waxal la sa démb te ku nekk maa ngi sa ay dossier ba ci dof dof yooyu ñu naan leen ay imaam la noor yu kenn xamul mm. ñoom ñëpp ku ci nekk maa ngi sa ay dossier te nag kenn kii na ti ma wax dara ci waale temps yi ñuy wax ci moom damaa fekkoon ci kaso bi rek. waaye bu ma fekkoon ci biti ah ba ñuy juutu di dem réew ma di juutu ba sew ba mu amatu njaram lépp dinaa ko tudd ñu xam. kontaan nañ bañ a bàyyi waale kontaan nañ bañ a bàyyi waale <laughs> délégué émission bi neex na ba gis nga temps baa ngi dem sax mënuñu ko euh, calculer ndax. ma ah, allah ah. waaw non nice nice quoi tey moom voilà kontaan nañ en tout cas émission bi. leen ñi quoi ñeneen dañuy ah. seen émission yi rek. ñu koy yàq bu yàggee ñu tam ñu nag ñu ne ñun carrément dañu féete fee loolu la ñu bañ. ci waay 6000 na xolo bàyyi ma wax ko 6000 6000 invité. bu ma paree sama vidéo nga naan ma waa ngay jàpp ni dama ñeew invité naa la ñaata yoon ba léegi ñëw suñu émission suñu suñu plateau ñu def émission. Eh, soo ko invité bu ma invité ti de. non non non non du bokkal ñoom ay micro. <laughs> looy tëjee waxtaan kontaan nañ <laughs> ci Dakar net. waaw waaw waaw. Dakar euh, net ah. waaw. waaw kontaan nañ bu baax parce que vraiment yéen euh, gis nañ ñi ngeen nii taxawoo waykat bi tamit ci mm. seen site internet yi. yéen a ngi koy partager tout le temps lu mu lu mu lu mu lu mu def rek ngeen sawar dugal ko donc euh, àdduna moom noonu la bu ngeen gisee ni kii moo fi ne da ngeen koy nangu te yéen site internet yëpp xam ngeen ni kii moo fi ne te kii leen di fay. moo tax nangu lañ ko. waaw moo tax ngeen nangu ko donc euh, noonu mooy àdduna. waaw yéen daal vraiment. Eh? gàcce ngaalaama. fii nu da koy reprendre. Ah, eh. man ah eh, xam na. Ah, comprendre nga Ousin. donc euh, mu nekk loo xam ne site internet yi suivre naa leen tamit gis naa ne yéen a ngi topp Wally Gambi. Mm-hmm. topp ngeen ko fu nekk. Mm-hmm. ngir bëgg weccat. weccat ndax bu ngeen dugalee rek ngeen di fayeeku. waaw donc loolu ñoo ngi leen ci gis ngeen bu leen ban artiste moo leen jaral ngeen jël seen oto def ci essence. waaw si Sidy Diop la. non waxal dañuy waxtaan nag soo bëggee émission ñu waxtaan. dama ne la ban artiste moo leen jaay. waaw Youssou moo leen jaral yéen ngeen jël seen oto def ci essence topp ko. non yeneen gars yi ñu ngi koy ñu ngi koy def. déedéet déedéet barke Sëñ Tuubaa defu leen ko. waale kese leen moo leen ko jaral. man Gàmbi bi laa xam ne yéen da ngeen bëgg waale. parce que site internet yi ma gis ñu dem yëpp yëpp te ku nekk waale wata waale jox leen essence ah suñu moo te da ngeen a boycotté ñeneen ña fa demoon. boycotté <laughs> muy dem ci ay kan. Oh. ambassadeur la xaw ma. Mm-hmm. ambassadeur nga xam ne ah, sëñ bi Sénégal bu Sénégal. waaw ah, ambassadeur Sénégal bu nekk Gambie. Eh, eh, bu naar feex ñu noonu. dem ci président ambassadeur bu bu rëy boobu. Mm-hmm. yow yaa ko ci xasaas la. xas kay dafa naar feex quoi yow nooy nekk en tant que ambassadeur. Mm-hmm. di far fenn naan waaw nangam nangam. loolu baaxul soo nekkee kilifa da am joxe da joxe ay exemple mhm. waroo di kii fii di kii mhm. kooku kooku yi war na koo dindi teg keneen. Mhm. mais kontaan nañ trop. bëgg nañ bu baax frère. kontaan nañ tamit ci yéen bu baax a baax vraiment. tey ni mu kii la sax. moo tax ñëwaat waaw yëngu ñu quoi xam nga ah. rek. waaw ñuy doog a laale quoi foog ñu ñëwaat voilà am yooyu noonu noonu la demee waaw. Ah. mais beneen yoon daal xam naa ne dina neex te dina yëngu. incha allah dañuy ja jàpp benn jour sax ñu waxtaanee kaso. waaw kaso waaw surtout waaw. waaw waxtaanee kaso bi li ñuy dund. waaw li ñuy dund waaw. ci biir kaso bi donc mbir moom boo ko dundee rek day day yomb. waaw dafa ñu bëri ñu bëri nag. Mhm. tur bi da leen tiital. Mhm. mais kaso dafa dafa jar gaa yi xam lu bëri ci biir kaso. Mhm. yee. loolu xam naa dinañ ko dañ koy wutal émission à part. voilà boo xamante ni voilà dañuy waxtaan si mbiri kaso ak yooyu ak nekkin yeeg euh, détenu détenu ni ñu fa nekkee ak a été un plaisir nañ bu baax waaw fii la ëppee maa ngi gis tamit Ndeye Gueye uh-huh. ñu kii ko na xaw ma lan daa am ñu koy woo di ko saaga ndax waali mm. lu tax ñooñu duñ woo ñun. waa mais